kàttanu yàlla ak turu yàlla bi ko liggéeyee. jërë jëf mbokki wasaare lamb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax boo gisee toogaay bi xam na tey ndaanaan leen lañ dalal koo xamante ni daa bokk ci làmb muy Général Malika ñu koy bàyyi nag mu nuyoo ndax tey ñoo ngi fii Kër Massar fekk si ko fi nga xamante ni euh, fi lay doore waar ñu fekk si ko fi ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a yaata waxtaan bi Zé nuyu naa la. waaye Ousseyn maa ngi lay fay ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu suma sëriñ Cheikh Abdoulaye Diop di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak waa Buun waa Kër Massar waa Cité Pilitance di nuyu képp kuy suma soppe di nuyu tamit sama ami nekk ci diaspora bi di nuyu sumay waajur di nuyu ñëpp ah di nuyu képp kuy bëggee général. Mhm. dégg nga képp kuy bëggee général ñoo ngi lay nuyu ak ñi nga xamante ni axlu làmb lañ général tey ñu fekk la fii fii nga nekk nii fii fan la. waaw fii sama sama benn place copain la zoo technique. fii mooy bureau moom agent immobilier la fii lañ yor ku bëgg kër wala nga bëgg terrain wala nga bëgg location voiture wala nga bëgg oto soo ñëwee fii danga koy am ci lu yomb comprendre nga souvent man jo suma waay la quoi dañuy ànd di déggoo ci lu bëri moom nga ñu fekkoon nii ñu waxtaan am ci ay détails yu ñu doon yu doon conclure quoi mais moom suma waay la suma lépp la quoi dama fee ñëw nii nii nii rek mais mooy loolu noonu quoi waaw waaw. Ah, fi làmb toll nii est-ce que Général Malika à part làmb am na ci lu mu yëngu. non pour la moment nii ñun nekkuñ ci dara boo bëggee dégg-dégg ñun làmb mooy suñu lépp saa bu ñu xëyee entraînement la ñuy def te li ci gënoon doy waar mooy ñun dañ doon préparer yaakaar ni décembre bi nii day fekk ñu bëree ñun looloo doonoon suñu problème ndax bu affaire yi amee dañ doon wax naan bu affaire yi di jeex làmb ji di tàmbali bu affaire yi di jeex ñu nekkaat ci loolu mais ñu ngi ñun daal préparé nañ ba ba dee daal xamatuñ ñun fi mu toll nii fan la ñu war a taxaw man moom nee naa gars yi est ce que sax du ma dem xooli leneen quoi ndax affaire naa métti. waaw mbokk yi ñu fàttali leen ko moom général Malika moo bëre ki nga xamante ni mooy fils de la defe naa ne combat bi ñaata fan a ci desoon sax. une semaine. gis ngeen une semaine ci desoon mbas mi ñëw tënk ko euh, ñu jóge ci yaakaar ne dinañ ci génn léegi yu bëye ñu demaat ba ci biir mbas mi deuxième vague bi dellu siwaat affaire yi nag mbokk yi metti na ba tax na Wassare Lamb day xool ñi nga xamante joto jotoon nañoo jël avance wala ñi nga xamante ni lekkoon nañu avance su jàmm ñëw waxtaan ak ñoom parce que di préparer combat mu des une semaine ah boobaak léegi xamuloo fooy taxaw xamuloo naka ngay def ak waaj bi dafa metti yenn yu bëri lu ci nekk li ci ëpp yëpp mënuñu koo wax waaye metti na mbokk yi ñu fàttali leen ko moo fi sa bàll la préparation bi naka la demee woon. préparation bi metti woon trop ndax li tax mu metti woon mooy comme nga doon mbër boo xamante ne dafa am lu nekk sa kanam am foo bëgg a yegg jëmoon nag ci combat boo xamante ne làmb la woon boo xamante ne dafa amoon coow trop quoi muy ci adversaire bi muy ci tolluwaayu làmb ji mais comme yàlla dafa dogal ñun dañuy compétir ndax man dama doon préparer. di compétir di waajalaale combat bi xam nga loolu dafa xaw a metti mais ma dem benn moment tamit xam ni affaire yi diis na trop ndax combat dafa xaw a yéeme ma ar ma jël compétition yi teg ko ne. concentré compétition bi compétition lan la dem ci simple yi mbapat di dugg ci àll bi di dem ay Adrien fu ñu ne làmb tëgg na rek ma dem bëre ji quoi xam nga ñun bu dul bu dul combat arène dañuy compétir bu dee combat arène tam dañuy compétir. dañoo nekk ci mbapat yi doon doon waajal mais mu dem ba benn instant tamit affaire yi metti ndax munoo di waajal combat capital ba pare di concentré wu ci mbapat yi lu bëri te dama doon def chaque dimanche ma dem chaque dimanche ma dem dem ba benn instant na ñu ne ma arrêté loolu concentré wu ci sa combat mm-hmm, mu doonoon lu metti waaw. waaw léegi nga di ko nga nga concentré wu dem ba ci biir làmb ji yàqu mais bi nga yëgee ne corona bi ñëw na làmb yi taxaw na naka nga ko dundee. non bañ yëgee ni corona bi ñëw na dañ doon wax naan am na am amul man boog pour man. loolu dañ koy dégg rek Europe la yem. comprendre nga ndax ñun fii Sénégal déggoo fi woon ku fi corona dañ doon wax naan feebar bi am mu ngi dox mu ngi law dañ leen tëj frontières yi nekk ci affaire yooyu naan am nañ benn kaaw ak am nañ moodu moodu yu ñëw ak xam nga genre yooyu man lépp maa ngi waaw lépp ñu naan affaire yi mooy loolu noonu ñun ak lu mën a xew dinañ bëree ba pare. ndax ku dem ba làmb ji des une semaine ñun daal suñu kër lañ toog naan Macky Sall war naa wax ay vers 17 heures ah xaw ma 16 ñu toog amoon na sax làmb bu amoon. waaw ñuy seetaan noonu fekk gars doon ñu wax dañ cee war a jàkkaarloo ñuy seetaan jékki-jékki dégg Macky Sall expliqué ne new instant bi dañuy arrêté lépp à partir lundi te moment boobu ñu ngi woon samedi à partir lundi dañuy arrêté làmb yeeg arrêté tëj université bi affaire yeeg yooyu noonu mën a noo lii mënta nekk. sama mag bi ne ma ah état wax na de ma ne ko non lii mënut a nekk état boo waxee ñun une semaine non non ci xaaral gaw ko fekk am na ñu nekkoon ci làmb ja ma woote ñu ne ma sax même làmb soq gàmm gay ñu waroon bëri ci dimanche bi arrêté nañ ko. ma ne comme sagam ñoo ñoo waroon bëri suba moom ñu arrêté ko kon ñun arrêté nañ ko mais ma mel ni kuñ dóor martu ndax moment boobu dund naa coono yoo xamante ne dañ naa dañ naa ci loo xamante ne ñàkk naa ci alal boo xamante ne bugguma woon rek lu dul combat bi jeex man ma dem xooli leneen. léegi bañ ne aj nañ ko mu doon lu metti mais tamit ñu gëm yàlla xam ni tamit jaam ak pexem yàlla ak dogalam jour boobu ñëw nañ fa def fa benn jàkkaarloo. après affaire yi aj pour ñun buñ ko ajee ay vers trois mois lay duré quatre mois tombeek affaire kii ñu dem toog ba nii. ngeen ñëw fa def fa jàkkaarloo boo xamante ni daanaka bi ngeen yegsee yow Fils de Balla ñëpp a fàtte combat yi fa amoon ndax ànd ngeen fi ambiance boo xamante ni dañ ñëpp daw jëm ci yéen lan la woon sa diggante yow ak ak Fils waaw làmb la rek ndax moom dañoo xas-xasloo dafa taxaw wax man ma taxaw wax mu ne bu làmb jaa dina ma duma ma ne ko dinaa la duma ku nekk nag li nga diggoon sa morom saa bu ngeen gisantee rek loolu ngay jéem a imposer léegi nag ñëpp xam nañ ne làmb ji am na ampleur léegi bu ñu dajee dafa war a neex ndax moom xam naa ni parewul pour may ma dara man nit xalaatuma ko may lu tolloog tarafatal ay nii. nee na nee na nee na sa sëriñ lañ làmb ji. sa sëriñ moo tëgg kombaa bi su la neexee ñu jël làmb ji andi ko ba sa biir kër sëriñ ngeen bëree ko fi yéen ñaar. loolu bu ko waxee moom waxu waxul lu am yàlla xam na ni loolu bu ko waxee waxul lu am. mais moom lañ tuddee sa sëriñ lañ tuddee drapeau bi. comme comme comme fi muy waxee noonu waxul lu am xam nga nit ki yow yaay am sa suwaawu bopp promoteur bi mooy am suwaawu def lu ko neex. ndax man bu ma soñoon làmb jooju du doon drapeau sëñ bi ndax wax ji dafa bari moom fi mu toll nii dafa jël loolu daf ko prétexte bëgg ci man maa ngi gis sax day mel ni kuy gaaruwaale Assane di di ci wax ay détails yoo xamante ne man Assane maa ngi toog devant tous les publics devant tous les sénégalais yëpp ngir yàlla drapeau boobu boo ko mënee changé jox ko keneen man dina ma arrangé loolu man maa la ko ñaan. mais est ce que nekkul lim nekk sa drapeau sëñ est ce nekkul dafay xaw a diis. est ce que nekkul dafay xaw a diis. bëri naa am ci ndam di ci sant yàlla mais xam nga lu tax ma wax ko loolu booy bi dafa dem ba bëgg a jël loolu def ko prétexte. di wër fu nekk di wax ay drapeau bi sëñ bi lañ ko tuddee ak sëñ bi nangam mais man pour ma bañ a sonal sëñ bi wala ñu yaakaar ni sëñ bi da ciy def loo xamante ne demeewul noonu wala da ciy jàppoo wala da ci dina ci jàpp parce que tamit parce que tamit taalibeem nga ah, ñu tuddee ko yëf loo xamante ni ci nga yëngu dina ci jàpp kooku xam nga du combat kase chaque jour que jëfee mu ngi ñuy jàppale kon kon bokkul ak combat boo xamante ne dafa war a ñëw ñu tuddee ko ko ñàkkul ni sax moom man li may ciy dund moom pression mën naa gën a ëpp ci moom ndax man tuddee nañ ko làmb man ma ko bare ko te boobu teewu ko mu ko mu ngi ko fekk mu voyage te dégg na ci lu ne kon man pour ma noppal ko moom moom na taxawee position wu yemale ñëpp rek Assane Ndiaye mu dimbalee ma ci loolu bu mënee jël dara. non du question de noppal man li may noppal mooy maa moom ñu bëree ci jàmm ma dem xooli leneen. loolu mooy li ma noppal man awma pression ci benn côté bu ko neexoon drapeau bi nañ ko tuddee moom ku ko neex. comme moom nee na sama sëriñ lañ ko tuddee nañ ko dindi ci sama sëriñ moom ñu xool moom ku ko neex ku ko doy ñu tuddee ko drapeau bi ba xam man dinaa ci am pression wal dinaa ci am problème wala dara nekkuma sax ci loolu noonu affaire bi du affaire de drapeau xam affaire affaire de lan la affaire de am sañ-sañ liggéey gëm sa bopp pare pour dëggal sa bopp mais affaire bi du ay wax nekk fii di tararari de nit ñi tollatuñ sax foofu noonu ko quoi. Mhm. yow daal su ma déggee wax ji daal mooy da nga bëgg mu bàyyi wax ji dem liggéey. non man man loolu duma ko ko wax de liggéey lu ma ko xaw ma ci lu mu nekk man lijjantiwu ma ko sax man. mu ngi may seetaan dañ koo saako pour muy wax. gémmiñ moom ku ñu xaral gémmiñ baay pour wax a tax. ak loo ci dugal moom am na esprit boppam am na fu mu toll am na nu muy doxee am na nu muy waxee loolu moom la concerne man bu ma taxawee naan ko dama koy conseiller ci dara wala naan ko defal lii damaa yabaate sequma ak moom loolu contrat moo ñu boole te contrat boobu laay xaar bu matee day jël yoonu boppam ma jël sama yoonu bopp mais fekk diñ boole mu ngi suñu kanam moom li ko li mu war a def loolu moom la intéressé wala moom la concerné man it li ma war a def man la concerné na wax def lu ko neex loolu lijjantiwuma ko vraiment. mais fan gis. Euh, daanaka yéen ñi ànd mën naa ko lim sax yow ak euh, armée benn ba ak mba guy gi 95 seen ànd bi maanaam daal dafa dafa nekk loo xamante ni am ngeen confiance da ngeen ànd di entraîner yéen ngi ci TikTok bi yéen a ngi ci Facebook bi yéen a ngi fépp loolu lan la da ngeen am confiance bu bari wala nu mu demee noonu. ñun loolu du du tey démb la woon. xam nga ñun làmb rek boolewuñu yàlla dañoo boole woon démb ñuy ànd ànd bu dëggu di ànd te yàlla rek tax kon bu demee ba ku ci nekk di xàll sa yoon ba yàlla dogal ñun ñëpp ñu bokk li ñu bëgg lu ñu mën rek mooy di ànd di ko gën di rafetal ni ngeen ñuy gisee noonu noonu lañ mel fu ñu nekk dañuy dégager stress. mais àndu mbër dafa yombul. yombul mais yàlla dimbali nañ ba li dal ñeneen yi ñun daluñu soxorantewuñu siisantewuñu iñaandente ñu te ku ci nekk sa morom li mu am yéene nga ko te doyloo nga li la suñ borom sédd xam nga ànd boo gisee merewoo rek suñ borom day dénk sa morom loo sa xol àndul wala mu dénk sa morom loo xam ne yow neexu la ñun nag loolu daluñu tey jii nii ku am mbégte suñu mbégte lay doon ñun ñëpp ku fi am naqar suñu naqar lay doon ñun ñëpp bañ na ko ba ñun du ñu toog une semaine wala benn fan bu ñu gisantewul ku ci gëj a gis sa moroom di nga déplacé wu dem ba ci këram xool ci lu mu ne ndax koy xëy sax di bokkal entraînement chaque jour kooku mënoo leen di gëj a gisee te loolu mooy suñu dund ñun ñu ngi ci jàmm ñu ngi ànd ci jàmm ñu ngi waxtaan ci jàmm di ñaan yàlla lii dal ñeneen ñi ba jox soo di dox seen diggante ñun yàlla bu ñu dal te nii mooy almadi fi mbër yi dajaloo ñu gis leen fa. Euh, te daanaka dégg naa ci keroog bi ñu invité TFM mbër yu mag yi VIP yi laa mën a tuddee nee nañu euh, li ñuy li ñuy kaas kaasalu ju ko ñoom seen bopp. mais bu ñu gisee li nekk seen gannaaw seen yaram day daw ba tax na moo gën a tax sax ñoom ñu génne di di di di di jooytu ak di ñaxtu keroog ñu gis leen fa seen teewaay lan la woon. waaw ñoom bu leen neexee ñu wax loolu ndax tamit wax nañ dëgg ci benn côté. benn côté tamit ñun ñoo bokk li ñuy kaas ñun ñëpp tey jii ku ci nekk bu ñu ne woon làmb tas na amatul ku ci nekk da ngay dellu ci la nga yaakaar rek nekk ci ñàkkul ni nag ñoom am nañ ci teraanga boo xamante ne ñu ngi ciy sant yàlla ñu ni tamit ñu ne ay mbër yu ndaw lañ xeebuñu ci luñ ci suñ borom cërale xam nga li am solo mooy mbir mi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp nañ ko fexe di xàccandoo di dóorandoo ndax li problème bi mooy état bi bu ñu waree wax ak ñoom dañuy wax ak ñoom sérieusement ñu dégguñu te benn instant man jàpp naa ni laam-laame bi da cee bëri négocier bi da cee bëri kon ñun la ay lan lañ ay indien lañ wala ay congolais wala ay ghanéen ba saa su ne rek buñ génnee war a wax ñu jàpp ni gaan man la sumbaa li ñuy wax c'est pas normal wala du forcé ñun dañoo war a wax ci ñun ay citoyen lañ ñu ñëpp te li ñu war a bàyyi xel mooy làmb facteur de développement la ñun li ñuy am dañ koy delloowaat ci biir réew mi dégg naa keroog président Gris Bordeaux wax ko mais wax ju am solo la. li ñu am dañ koy delloowaat ci biir réew mi kon où est le problème bu jëlee yeneen yeneen milliers yëpp suspension la leen jox leen ci feebar beeg yëpp jox leen ay milliards yu dul jeex ñun ñuy ay mbër di ay citoyen di ay sénégalais saa su ne problème boo dégg Sénégal lu xew borom mbër yi lañ ci njëkk a xalaat ñuy teew di leen assister ci côté bépp. mus naa ko wax sama benn interview nee naa ko Macky Sall jour bi mu waree ñëw Pikine dafa xool leaderu Pikine mbër yi woo pour jëmmal bisam. ba mu waree ñëw parcelle dañoo jiital ñoom Modou Lo ba mu waree ñëw géejawaay Balla Gaye noonu ku ci nekk gox boo waree ñëw yaa ngi xool mbër mu fa nekk am coow nga jéem ko jiital pour mën a yokk sa coow kon tey ji bu demee ba làmb toll fii am jafe-jafe ñu ñëw xool war a xool nuñ ci jàppee di ñu seetaan loolu dafa dafa ñaaw tey jii nii ñun xoolal moment biñ toll nii liggéeyuñ defuñu dara duñ fi nekk sax di négocier naan ñu ngi ci lii làmb lañ gëm moom lañ yaakaar ci la ñuy xëy di ci gont comme ni ngeen gëmee seen caméra yeeg yi bu ngeen xëyee di xool information ak li ngeen di jënti ñun moom lañ gëm tey jii bu ñu tooy téye boobu ba léegi bëreewuñu ñu bàyyi ñu nii kon ñun fan lañ jëm quoi. te gisuñu leen benn yoon ngeen wàcc ci tali bi tali bi te ñun ñu ngi ñu ci doon xaar tey jii moo tax Sénégal dafa neex quoi li artistes yi def barki alxuraan ñun ñoo leen ko dàqoon fuuf te boobu ba léegi ñu ngi calmé toog jàpp suñu ñàmbur kon état bu fekkee yaay jiite Sénégal ñu ne yaa jiite réew mi ngelawaay sédduñu cër te bàyyi ñu xel ndax làmb du ay foo quoi ñun ñi ñuy bégal dafa bari am na ñoo xamante ne làmb ñu meree sax làmb la ñuy seetaan pour mën a dégager seen stress. iska dégg ñun làmb bi ñuy def tam ci lañ yaakaar pour dundal ci suñu njaboot ak képp ku ñu ci yaakaar kon tey bu ñu toogee bëreewuñu boobu ba léegi ngeen tënkuñu nanguwoo leen ñu def dara ba pare ngeen seetaan ñu joxoo leen ñu dara te tey tamit ñun amaana. subventionné wu làmb nañ ko wax te dee. non xaw ma benn affaire xaw ma ji génnee xaw ma vingt sept millions xaw ma vingt quatre millions jox ko xaw ma promoteur yeeg affaire yooyu mais suspension ci làmb nga yaakaar ne bu ñu doon ci làmb. Ah, laaj naa la ko. mais yow promoteur bi tëgg làmbam te mbër mi bëreewu ko est-ce kooku perte na. pertagul de. pertagul ndax même bu dee sax dafa loué stade lam loué stade ba mu ngi fa di ko xaar. bu dee dafa joxe avance mbër mi lam joxe avance mu ngi fa toog di ko xaar kon état boo war a suspensionné kan la war a suspensionné leader yi leader yi lañu war a woo jox leen. kenn par kenn ak ñi nga xam dañoo amoon contrat bëree ba affaire yi am nu mu demee ñooñu la ñu waroon njëkk a gëstu mais pas ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ginnaaw affaire yi tëgg seen programme mu wóor leen ne bu ñu ne woon suba bàyyi nañ lépp ñoom dañuy continuer tëgg mais mbër mi jëloon sa xaalis yow tas ko nag man maaraay yi ma demoon jox leen sama xaalis dama mën a delluwaat fu nekk ne leen bëréew ma delloo leen ma sama xaalis ñooñu instant bi ñu ngi farankulaay di xaar ñu ne waat contrat bi démarré waat nañ ma war a xoolaat lu ma jëlaat tegaat ko seen kon nañ bàyyi xel loolu noonu nañu gëstu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 jël mesure barrière yi espace supporter ndax ku ne xanaa xam na ne arène national yaatu na te am na espace espace espace supporter yi jox jël mesure barrière takk masque yi diw gel yi mbëri wàcc euh, ñu defee ko daal ni mu jaadoo. loolu daal moo doon yoon lool bu ñu ko waxee man ma nangu boo demee assemblée gaa yaa ngi fay daje. Mm. def seen réunion. ñii ñu ngi toog ñu respecté mesure barrière yi ñu bëreetuñ Ibamar de. Mm. Ibamar ak lu mën a xew ba fa tëggoon sax yaaw jaal keneen nit ñi dinañ ñëw dina fees mm. mais arène nationale ba fee. du du du lu ndaw te bëri na mbër yoo xamante ne mën nañ faa bëre te du déranger kenn jël suñuy mesure barrière siège bu nekk bu fi kenn bu fi toogee ñu xaaj boobu keneen toog fee mu am espace loolu lañ fi wax wala la leneen ndax taximaan yaa ngi yàpp nombre. biis tataay ñu ngi yàpp nombre. kala dañoo yàpp fees. dañoo yàpp ba fees dell nga dem ci bërëbu liggéeyukaay demal ci sance yi. wala nga dem ci entreprise yi amul benn entreprise bu ñu dem ne dañuy wàññ ay éléments ñu ñu liggéey ñëpp fonctionnaire yaa ngi dox kon tey jii loolu ana problème bi kon léegi. te boo xoolee sax ñii di football ñoom ñëpp ñoo mais mais est xam nga ne problème bi dañ ko war a def dañ ko war a xoolaat affaire yi bu par point nañ ko indiwaat xam nga jour yi dañoo kaas ñu ne football du am. Mm-hmm. ñu génn dëggal seen bopp ne la deux dañuy tàmbali seen championnat ñu négocier ak ñoom bàyyi leen ñu tàmbali. bërki dem maa ngi ñëw jóge voyage di déglu information football yi ñu ngi football ñoom xëy na jël nañ seen mesure barrière comprendre nañ leen ñoom déranger wu leen ndax football bi yaakaarul ci ay supporters mais ñun promoteur mooy tëgg làmb te promoteur bi supporters yi ci la yaakaar pour mën a remplir lim jot a def ci alalam bi mu jot a def ci làmbam ñun ñi tamit jàpp nañ ni supporters yi mooy suñuy doole ñu ñëw làmb ba jóge fa gisoo ci ay supporters fii mbër mu la gën a néew supporter moo la gën a néew moo gën a néew li muy fayeeku tamit moo gën a néew li muy fayeeku kon ñun supporters yi ñoo ñuy fay. mais léegi nga bëgg tëgg laa mu ne supporter du ñëw. kon léegi kon léegi yow kon léegi yow naka nga gis ne ñoom ñoo wax wala naka nga gis ne ñoom ñoo war a toogaat xool xoolaat seen doxalin. li ñu war a def mooy bu fekkee fi réew mi toll état li mu bëgg mooy tënk nit ñi ci côté bépp na fexe xool nu mu ñu génnee ci situation yi ñu jéem a xooli leneen mais bu fekkee la fait ñu ngi ñuy dégg ay bëre. nañ jéem a xool yeneen décision yu ñu jël mais pas yi ñuy wax ay ay huit kilos ak neuf kilos loolu mënut a ne huit kilos mënul am ci làmb loolu nañ ko sax génnee ci seen xel yi nañ fexe daal xool nu ñuy régler situation yi nit ñi delluwaat seen activité ñu nekkaat ci jàmm ñun ñëpp nekk ci jàmm ndax tey nii ñun suñ doole lañ yaakaar ñun yaakaaruñ leneen. dégg naa Modou loo junj ko mbër mu ci toog compétir woo wala bëre woo wala entraînement woo normal làmb yamul ak lenn dangay ngay perte repère di nga ñëw ci làmb ji bëgg def li nga bëgg def mu tëla man gis naa ci mbër yu bëri yoo xamante ni fi mu toll nii nekku ci état parce que dañoo découragé. dañoo découragé ñun ñii ñëpp a yem dañuy découragé ndax tey jii imaginel bu fekkee yow sa compte sax xawoon naa am as tuut booba ngay jaande di cof di cof di cof di cof bu fa téeméer nekkoon jàppal ni fi mu toll ni fikk dërëm a fay des wala dara du fa des ndax dundu mbër dafa metti boole ko nekk ci sa bopp ndax saa su ne yaa ngi jàpp ni suba la làmb di ubbi loo yor yaa ngi koy def ci sa bopp boole kook di dund day dem ba li nga yoroon yow day jeex tàq te du la apporter dara ñu nekk suñu ginnaaw bul comprendre kon tamit nañ jéem a xool solution quoi vraiment te xam ni mbër yi sonn nañ ba fa yam Euh, bu fekkee dañoo bëgg ñu bàyyi làmb ji ñu wax ñu ko ñu bàyyi làmb ji dem xooli leneen. balaa ñuy tardé balaa ñuy tardé barki yeneen ti bi. gis nga noonu lay demee mooy ñun ñun ñuy liggéey sax fi mu amatul lu ñu liggéey mais ñi duñu seetaan yàbbu ñu leen yàb goo xamante ni dañuy xëy rek toog ba ñoo ngi xool chaque jour li nga xamante ni mooy information làmb ñoo ngi xool chaque jour li nga xamante ni leen di ñu jéem cee euh, li muy kaas ni nag ci mbëyu mét ndaw yi la gën a méttee parce que ki nga xamante ni amoon na métier commencé jàpp ci làmb mu am ñu ko yaakaar am ñoo xam topp nañ ci ginnaaw mu bàyyi lépp ndax làmb suñ bëggee tëj làmb ji te gisuñ ci yenn condition lañ ko tëjee day xaw a metti kon état bi na ci jàppaat euh, ministre Mataba na ci jàppaat bu baax a baax jàppale xale yi président Guèye Bodo moom tamit bu mu bàyyi na gën a wax parce que ñi ko dénk lii am nañ ci moom yaakaar su ma jugee ci loolu damay damay damay ñëw ci combat VIP yi nga xamante ne nii moo fi jotoon taxaw newoon nañu combat yooyu bokk na ci combat yi nga xamante ni moo suqali ah waaye nag eh, yàlla baax na bu bu mu ñëwee ci combat mutloo Lo bale lan nga ma ciy wax lan mooy seen avantage ak eh, lan nga ci gis combat boobu. na ni la diggante Ama Baldé ak Modou loolu boo ko làmb soxlaa du tey démb la woon lañ ci commencé débat képp kuy nitu làmb yaa ngi toog di bàyyi xel naan Ama ak Modou Lo xaw ma kañ la ñuy daje mais làmb jooju kenn du ko lijjanti yàlla dogal na ni nag làmb ji taxaw na nañ ñaan yàlla. yi jeex ba làmb ji ñëw mais naa la xamal lenn de làmb jooju dina neex dina metti li dina neex dina metti mooy ku ci nekk dafa am foo teg sa bët ku ci nekk dafa am foo jóge Ama Baldé dafa am ci lu rëy lum jóge Pikine gi yëpp yaakaar ko moom gëm na ni moom lii reefam yëpp mooy don roi des arènes Modou nag moom it dafa am ci lum jóge ndax dafa dafa am ci ci ci defet bu mu jugee ba pare ñëw yor titre bu ñëpp soxla te defet bi mu jugee donte mu ngi ci roi des arènes mais li ko gën a metti ci carrière loolu da cee bokk te ku ne xam jël bi ko Balla Gaye daan te ku ne xam na ne Balla Gaye ak benn la lundi ak mardi la bis doxul seen diggante kon dafa mel ni Balla lay bëree waataan. ma dool la ci dafa mel ni Eumeu Sène lay jël revanche ndax moo andi woon Eumeu Sène ko Modou daan ko. mu andi Balla Gaye Balla Gaye daan Modou moom mu ñëw jàkkaarloo waat ak kii di Modou Lo. kii di mu wóorul ni làmb jooju làmb ju doy waar lay doon. maa ngi seetaan fan yi seen image ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp ñu ngi ci ay liggéey yu doy waar di leen wax ni daal. noonu bi nga gisee image su Modou Lo gis image su Ama Balde noonu la gisee ñoom ñaar. waaw mais loolu laa wax ku ci nekk damaa gis ci état de physique bu doy waar ndax man li ma li ma leen di expliquer li ma leen di wax mooy man Ama Balde dama koo xam ndax fréquenté naa ko bokk nañ écrit mais da doon yor état bu doy waar diis bay direeku mais moment bi dama koo gis mu yor état boo xam ne dafa suupul. moom yaram vivacité mu wër ma ne kii mu ngi liggéey endurance ak rapidité ak vivacité te Modou Lo ku bëgg a bëre moom foo nga indil ko. est que est-ce que vivacité boobu oyof boobu. ak diis bi mu tàmmoon. est-ce que bu àndee vivacité dina ko enranger. mais xam nga làmb fi mu toll ku ci nekk da ngay xooli làmb laaj ndax yaakaar naa ne man du bokk ma ci staff Ama Baldé. mais doon nga ci ñi nga xamante ni doon nañ contact ak. doon ak moom ñàkkul ni moom làmb ji mu toll nii. am na fu mu ci teg bëtam ndax. nit ku ci nekk ci li nga nekk am na ñu la ci wër ñoo xamante ne ñàkkul ni sax ñoo la ci ëpp xam-xam te ñoo gën a xam li gën ci li nga jëm moom staffam xam nañ lan moo gën ci làmbam moo tax ñàkkul ni ñu koy liggéeyloo nii comprendre nga. ndax man fekkee naa ko moom Malick Niang muy préparé ñëw ñibbisi samedi dimanche lundi ñu dugal ko ci écurie bi di ko physique loo mu naan ma général toog naa trois mois yoo xam ne soo yi may def nii def ma ko saal rek laay dugg ak yooyu noonu mu ñëw gars yi tegaat ko ci mu ko ni làmb jooju dafa am lu mu ko jaraloon te ba mu résultat feeñ na. kon bii tamit mu ñëwaat ñàqul ni ñoom staffam am na lu leen làmb ji jaral mais Modou Lo saa su ne tamit dafa doon mbër moo xamante ne da nga koy gis di bëgg ndax lii lii bëggal lii bëggal ay supporters moom mooy mbër mi saa bu ñu ko gisee rek nay nekk ci état de physique bu baax. te Modou Lo chaque instant da nga koy gis day maintenir formam day nekk ci état bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mu war a ni kon ñoom ñaar tey seen làmb du yomb ndax Modou day ndaanaan bëreeg fii ku ne. Ama Baldé tamit di ndaanaan bëri fekku ne di la wax daal li ci mënut a ñàkk mooy balaa bëree di am dinañ xeex. xeex moom munu cee ñàkk. yaakaar nga ko ci. wallaay ah ci li ma gis ci ñaari mbër yëpp xeex munu cee ñàkk da ciy am force boo moytuwul sax dem ardo ñawaat am ci. Eh, kon loolu dina neex. day neex nañ ñaan yàlla laf cat rek làmb ji suñu borom yóbbuñu ceeg jàmm ndax làmb jooju day indiwaat làmb quoi. boobu neex na waaye damay wàccaat suuf tuuti. ñi nga xamante ne ay révélation lañ euh, muy guy gi ak rëgg ndax ñoom ñaa seen combat gis na ni avant muy taxaw ak lu ne am na ci. dégg nañ ci Lamine Samba dégg nañ ci guy gi dégg nañ ci rëgg xas-xas yi amoon sa diggante yow Fils de am na ci ba làmb daanaka ñu ci bàyyi woon xel sax loolu loolu tax na mu bëgg làmb ji taxaw làmb ji taxaw yow nga nekk koo xamante nii su ma juumu mos ngaa bëri rëgg waaw léegi nag làmb jooju noo ko gisee ndax guy gi am na fu mu nekkoon. bañoon na ko jël mais wax ji xas-xas loo yi baax na ci làmb li may wax chaque jour rek wujj ci am ci lu mu amul rek lu nekk rek du dem. waaw ba tax na rëgg guy gi gis na loolu tax mu mu jël combat bi noo gisee boobu komba non combat bu neex combat bu neex ndax ku ci nekk dafa am loo jot wane xam nga souvent dañ daan faral di wax naan mbëru simple yi mu néew ñu arène. buñ ñëwee arène dañuy waaye di ndax duñ ñeme dóor wala duñ nàngam rëg-rëg prouvé ci bëre simple ba àdduna yëpp nangul non si Reug Reug prouvé ci bëre simple ba ñëpp nangul ko ko mu ñëwaat ci bëre dóor yi prouvé ci jël fi ay mbër yoo xam ne ku ci nekk bu koy jël dañ naan sa waay dina ko dóor mu ñëw day dëggal boppam ci xeex yi bëree daan ba làmbam bu mujj digganteem ak Gris 2 ni mu ci wanee boppam mu doon moom mbër boo xam ne mu ngi wane boppam guy gi tamit ba mu fi doon doon mbër boo xam ne ba muy soog a ñëw dañ doon wax naan doole rek la am mënul dara. benn kale bi yenu bu la ko deful. mais nga xool combat guy yu mujj yii da lay jàpp déclenché la mbot yii da lay jàpp indi la bëre nga gis ni bëre kon mu ngi ci yaramam. mu doon mbër boo xam ne moom it wane na boppam ba Sénégal gi yëpp nangul ko ko ndax guy gi kum dajalaat ak noo munti toll di nga ko bàyyi xel ndax sañ bi mu lay indil loolu nag ñëw daje ci ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa am sañ-sañ rëg-rëg dafa am sañ-sañ guy gi dafa am sañ-sañ rëg dafa nekk ci moom. guy gi tamit bëre bi dafa nekk ci moom mu doon ñaari mbër yoo xamante ne daal xam naa ni ak lu mën a xew làmb ji ci bëre lay mujje mais est-ce que yaakaar ngeen dina am xeex parce que xas-xasloo bii ñu ci ànd nii ragal naa ne duñ ñëw rek jàppante. bu xeexee buggul xeex. bu xeexee bu xeexee xeex lu mu mën a am bëree ko ko gënal guy gi bu xeexee mënul xeex lu mën a am jàppante ko gënal ndax jàpp na ni lépp lu mu war a am ci làmb jàppante moo koy may. mais ñenn ñi dama dégg ñu ne bu jàppante amee rëg la enragé. est-ce loolu nekk na loo xam te neex na dégg ci en tant que ñoo xam te day dund làmb. waa mais xam nga xam nga ku ci nekk ci li nga wane lañ lay gisee. Reug Reug dafa mën jàppante mais bu ñu fàttali tamit guy gi mbëru jàppantekat la de. fu jàppante day dugal boppam nengeeñ loolu foram la. kon ñoom ñaar ñëpp ay jàppantekat lañ. làmb la yoo xam ne daal xam naa ni buñ fi yàlla bay ak jàmm daal làmb la juy neex daal vraiment di wax que le meilleur Mhm. suñ jógee ci loolu xanaa ñu bàyyi la nga tàggatoo après ñu ñu ñu ñu tëj. waaw amul problème di di di jégaluwaat ñëpp di ñaanalaat Sénégal gi yëpp jàmm di wax yàlla na fi jàmm sax ndax ñun jàmm lañ xam ci lañ juddu ci lañ màgg ba tool fi ñu toll kon yàlla na jàmm yàgg ndax sénégalais moom mën naa wax mën naa rey làmmiñ mais jàmm rek la bëgg ndax loolu lañ xam comprendre la di wax yàlla na jàmm ji sax fii xam nga di di nuyuwaat monde entier bi di nuyu sénégalais yëpp di nuyu ñi nga xamante ne su ma mafia bi la ñi may àndal entraînement gaa yëpp ñoom armée guy gi quatre-vingt-quinze abba su ma xarit su ma waay moom it maa ngi koy nuyu moment bi am na ci ay situation yu mu nekk maa ngi koy ñaanal jàmm ak tan moom xam na man xam naa ko waa mook soxnaam maane ndax ay nit yu baax lañ vraiment fa ne dama voyage mais chaque instant dafa may woo di xool ci lu ma nekk te man loolu man la waroon kon Abba maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax ak sama gars yëpp maa ngi leen di siyaar di leen jox seen wàcci waaye naan leen aw ma seen fay comprendre nga sama gars yi may àndal donte affaire yi metti na mais ñoom it seetaanuñ ma chaque jour ñu ngi xool ci lu ma nekk di ci jàpp ku ci mel ni ñoom Diall ñoom Daouda ñoom Ameth Diop xam nga ñoom Paas ñoom Cheikh Tidiane xam nga gars yi may àndal yëpp ñoom Mamoussa ñoom Tafa Soumaré Seri Sona boo yëpp may àndal maa ngi leen di béggee ndax gis naa niñ ma teewee tee nañ ma ak samay fukki loxo làmb amul war na ma war nañ ma ni ñun suñu diggante ak yow du làmb kase xam nga dafa am nit yoo xamante ne ci période moment wu làmb rek nga leen di gis te ñooñu dañ naan say nit lañ am ñoo xam ne nag ñoom dañ lay wan ni carrément du làmb ak ñàkk làmb ñooñu say nit lañ à te yàlla rek tax ñooñu maa ngi leen di gis bu baax a baax maa ngi leen di sant bu baax sama gars yi nekk Espagne ñoom Ahmed Fall Zoungale moom it maa ngi koy bégee suma copain Modou kan borom Italie gis naa taxawaayam ci man mu ngi may taxaw bu baax a baax a baax moom it maa ngi koy sant bu baax di nuyu sama gaayab di wax nag suma benn xarit moom du ma ko nuyu dama koy ñaanal jàmm booy Malika. ndax situation yi nekk nii moment bi doy na waar trop di ci lancer message di wax na ci gars yi ñëw jàpp ndax moment bi mu toll nii soxla na jàppale quoi ñu ngi woo Sénégal gi yëpp di woo monde làmb képp ki nga xamante ne doomu aadama nga am looy yëg ci sa xol di la wax ni ñu ngi lay tàllal loxo ndax moment bi nii soxla nañ ku ko jàppale quoi comprendre nga ndax ku ci nekk situation yi mu toll boo ci tolloon di nga soxla ku la jàppale ñàkkul ni nag moom doole moo tollul demeewul noonu ñu nit suñ doole demeewul noonu amaana ñun bu ko doole mate woon duñ taxaw di ko wax kenn di ci jot mais ñàkkul ni doole yee ko matewul te olof dane lu kenn di def ñaara ko ko dàq kon nag ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp di nuyu tamit suma xarit suma doom day zoo ndax tey fii nga ma fekk fii mooy fii mooy fii mooy bureau bi fii mooy lépp ku soxla zoo fii ngay ñëw ku bëgg kër fii ngay ñëw ku bëgg terrain fii ngay ñëw ku bëgg oto tamit fii ngay ñëw comprendre nga di lancer message di leen wax képp ku soxla oto wala terrain fu la neex boo ñëwee fii da nga koy am ci lu yomb zo mu ngi jàppale làmb mu ngi jàppale ñi nga xamante ne ay jeunes lañ bëgg dara ndax ku taxawal entreprise bi di jël fi ay jeunes jël fi ay nit yoo xamante ne ku ci nekk soutien nga ci sa famille ñëw di leen jàppale indi leen fii ñuy liggéey pour daan seen doole loolu dafa rëy comprendre ko maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax naan la zo bon continuation gis nañ sa taxawaay bonne continuation di la ñaanal jàmm ak yokkute di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg bu ñu waxee erreur ñu ngi koy jégalu te xam ne ay doomu adama yu ñu xeebu lañ xel moo matul bu jubee it jàpp leen ni suñu boroom la ndax ay jàmm yu matul lañ quoi di jégaluwaat ñëpp di baal ñëpp ak tey baal ñëpp ak quoi di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. dégg ngeen Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ko wax amin ah, di wax kii di booy Malika nag na ci ñëw ñëpp ñëw jàpp parce que xale la boo xamante ni ci làmb la bokk njabootu làmb la te koo xamante ni ba tax na nag ñoo ngi lancé ñëpp appel képp koo xamante ni da ngay def te yàlla tax nga ñëw jàppale ko parce que xale la boo xamante ni nii euh, jàmbaar la te nekk na li ko dal nekk na loo xamante ni metti na lool metti na lool nañ ko jàppale ñu jàpp ci bu baax a baax ni ma koy waxee chaque jour rek xale yi nañ xam ne làmb lañ am te képp ku nekk ci làmb loo am na ko denc boo déggee ni muy waxee amuñ ku leen jàppale te da ngay gis ñenn ñi boo toolee benn moment bi dootoo leen gis wala dootoo leen dégg mu ne. de bi mu xeewee bi mu gëjee bëre day tax day solu taxaw ci seetu bi sax naan kii est-ce que man la parce que ñoom daan gis gisatu leen ñoom daan dégg déggatu leen kon gars yi wax ne nañ gën a defar waat ndax dëkk bi métti na waaye yàlla na fi jàmm yàgg di gërëm sama cameraman bi nga xamante ne Adama l'infatigable di ko wax kontaan naa ci yow jërë ngeen jëf gars